la ñaanal la nga tàmbaleek fa nga bëgg a yeeg jàmbaar marawaj dëgg la génne warul tiit moom du ragal jàmbaar marawaj moo di buuru àll bee la fekk dalay daan loolu la nga faa fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yeeg fulla ak fayda boo amee fulla ak fayda kenn du la yee fulla ak fayda boo amee fulla ak fayda kenn du la yee don't let the way come come come hard yoon ñu woye batti come come baka yaar let the way come come come hard yoon ñu woye batti come come baka yaar maa ngi seeti jëkkër la ñoo di Sénégal la ñoo dala teranga moo di jaay gaynde sa jaloore war na kim réew ku ci mel ni Thierno loo semaine bi Omar Gueye Seck amaana ci ñooñu la ñu xool la ji juum mu ñëpp ñu war a teg fees def fayda kenn dootu la yee fulla fayda boo amee fulla fayda kenn dootu la yee fulla fayda boo amee fulla fayda kenn dootu la yee gaynde gi may waye xamul caaxaan mu metti naa ko dee fu mu kontaan naa ko waye la si ko mu kontaan mu fàttali Njaay jëjjee ab tey nga ñëw fekkee li nga xamante ne mooy match bi ko retrouvaille ak seen coach tey loolu naka nga dundee moom. waa xam nga fii nii lépp fii la xewee chaque année saa bu ñëwee dañuy def retrouvaille jouer ay match entre nous mu doon loo xam ne mbégte la si ñun démb ñoo nekkoon tey ñooy nekkaat waaw di ñaan yàlla suñu borom defal ñu jàmm. ñu si ñi si signé gul pro suñu borom dimbali leen ñu am contrat mu gën si ñoom ñi xam ne ñu ngi si suñu borom dimbali leen ñu am yenn ay yeneen yu mag quoi. nekk sa yaakaaru équipe nekk fa capitaine naka ngay dundee. waaw loolu mbégte rek xam nga lépp liggéey la rek ak euh, ak yar waaw naa ni respect moo tax ñu jox ma ñu am reconnaissance boobu année bii nii ñu jox ma ma nekk capitaine ma nekk capitaine ñoo xam ni ay joueurs yu mag lañ si au niveau bi lañ jóge pour man loolu c'est une grande fierté quoi. tey yan joueur ñoo fa nekk nga xam ne joueur yu mag lañ comme yow. waaw Balotelli mi ngi fa belanda ah, Belhanda Stambouli ah, bëri nañ am nañ suñu góor bi Manchester City la jógee kon ay joueurs yu mag rek ñoo ma wër bu ma demee nekk xale ba nekk seen capitaine kon am na lu ma liggéey lu waral ñu jox ma respect boobu quoi. Khadim tey lan nga gis ci équipe nationale bi gannaaw ba ñu jëlee coupe d'Afrique bi ñu ngi dem ci coupe du waa équipe nationale bi lii continuité la pour man parce que groupe bi yàgg na quoi waaw di ñaan yàlla coupe du monde bi suñu boroom defal nañ ci ndam ñu indi ko fii parce que pays africain bu jël coupe du amagul kon ñu ngi ñaan mu doon Sénégal quoi. mayo yi. wax. <laughs> waaw moom mu ngi fi xam naa ko séddale ah comme ça. <laughs> yi nga xam ne say xarit la ñu ngi woon fii di jouer. waaw joueurs ñu ñun ñoo géewandoo fii ñoo géewandoo fii nawetaan xam nga. tey mi ngi nii zone bi bëri nañu fi génn ñëw équipe nationale pour man loolu fierté zone bi la quoi xam nga ah, di ñaan yàlla mu noon mu doon loo xam ne dafay continuer si ndaw yi nga xam ne ñoo bëgg ne nekk professionnel xam nga di remercier suñu coach bi nga xam ne mooy Denis moo waral lii yëpp waaw ndax avant moom moo ñu yoroon fii tey moom moo woote lii nii quoi ñu koy remercier di ko ñaanal école de football bi mu génnee si yeneen professionnel yoo xam ne ñoo ñuy raw quoi xaadim ñëpp naan social social ba ci Touba Mbacke sax màggal bu amee da ngay maye bus di maye lépp tey tamit gis nañ ko fii ba nga ñëwee xale yi war la da nga yëkkati may leen même bu dee som la rek. waaw pour man suñu ñu dénk rek après ñun ñëpp lii fii lañ koy bàyyi xam nga lépp solo mooy jëmu doomu aadama bi waaw tey boo fi jugee nit yi ñoo lay seedeel ñoo lay ñaanal kon affaire de matériel ak ay yëpp fii lañ koy bàyyi ko waaw. tey lan mooy say ambition fii Sénégal même bu nekkul football. waaw def fi loo xam ni xam nga ñun ñun suñu fierté mooy Sadio Mané moom la ñuy roy mooy suñu référence jéem a def li fi def rek waaw loolu la ñu ñaan quoi. merci beaucoup merci. la bu baax maa ngi leen di fay bu baax waa Dakar Buzz. tey ñu fekk la fii ci Sicap nga ànd ak say naataange rek daal di lan moo waraloon teewaay bi fii waa fii lañ ñu fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee donc euh, te nit ñi dañuy béggee suñ ñëwee fii amuñu lu dul euh, delloo leen loolu mun mënuñu dugg si kër gu nekk. fi ñu mën dugg rek la ñu dugg après li si des foog ñu ñëw bokk kook xale yi bokk kook suñu morom parce que balaa ñuy nekk professionnel fii lañ jóge donc euh, ça fait plaisir ñëw retrouver leen donc c'est très important parce que dafa am ñoo xamante ni ñun ay exemple leen si ñoom pour ñu ñëw jox leen moment bi donc c'est très important. bi nga ñëwee gis xale yi topp la ñëpp topp la parce que xale yi ëllëg suba ñun ñoom ñooy nekk suñu place. donc euh, ça fait ça fait plaisir xale yi nii euh, motivation la parce que euh, ñun defaluñ leen dara pour ñu bëgg ñu nii donc dañ ñu gis ñu juge si koñ bi dem donc ñoom fierté lañuy la ñuy am suñ ñu gisee donc ñun amuñu lu dul delloo leen ko donc euh, ça fait ça fait beaucoup plaisir et c'est très important pour ñu ñëw saafonteeg ñoom parce que fii lañ am yàgg yàgg suñu paree suñu carrière tamit fii la ñu dellu si donc euh, c'est ça loolu kese moo tax. ngeen di ndaw Sénégal di di di suñu titre tey euh, ban gis-gis nga am par rapport ak équipe nationale bi. <laughs> kontaan rek parce que équipe nationale moom fu mu toll nii fierté tele pour Sénégal yëpp depuis bi CAN bi ñëwee ak qualification coupe du monde bi mu ñuy gis nañ dëkk bi sax dafa stable donc c'est au-delà du football. donc euh, ñu ngi ñaan yàlla continuer ci ci lancé bi bañ a décevoir peuple bi parce que mérité wuñu ko bi ñu gagné CAN bi au lendemain de de la victoire ci lañ xam ni peuple bi mérité woon nañ vraiment sacre bi donc di leen continuer di leen ñaax pour ñu gën a nekk suñu ginnaaw dooleel ñu pour échéance yi di ñëw ñu continuer di leen faire plaisir. Euh, par rapport ñu ñëw nag ci équipe bi nga nekk nga xam ne nekk boole nga ci bokk nga ci meilleurs joueurs yi foofu euh, waaw joueur bu nekk day day ñaan yàlla performance ci club parce que bu ñu la jëndee c'est pour que euh, nga ñëw def euh, ay performance yu baax donc euh, man li ma war rek laay def après nekkul man kese maa nekk si équipe bi am na ñu ma nekkal donc sans ñoom man du ma dara donc après j'essaie de faire de de mon mieux pour jàppale leen après def naa saison bu baax am na ay stats yu baax donc aider na équipe bi aussi donc euh, damay damay euh, continuer si lancer boobu parce que football moom yemul ci benn saison donc continuer à persévérer pour euh, dépasser niveau bi nekk ci ci niveau bu bees. donc milieu de terrain nga nga am wii bi loo xam ne c'est pas évident ci génération tey bi. waaw comme ni ma ko waxee léegi rek man lépp lu ma mun def pour aider sama club dama koy def donc je me contente pas de ça. su ma mënoon def lu ëpp loolu aussi dama koy def parce que looloo tax ñu teg ma fa donc euh, kontaan saison bi ma def bu bu baax donc euh, et je crois que loolu moom mooy ibil euh, yeneen yeneen pok fi ma bëgg dem donc c'est très normal ma def saison bi parce que looloo tax ñu jël ma. saison bi ak liñ ci wane ak yëpp est-ce que amul yeneen club yu lay si dina am ay club mais après je suis contrat je préfère respecter mon club. parce que je suis encore sous contrat ba ba juin 2023 après am na ay club yu manifesté wu mais on préfère euh, rester professionnel ba ñu am lu concret. mooy retrouvaille bi tey seen coach bi nga xam ne moom moo leen formé nekk ak yéen tey. waaw moom moom amuñu amuñu fayam quoi lii lañ am parce que chaque fois suñ ñëwee dafay organiser match suñ ñëwee mu kontaan donc euh, depuis xale lañ nekk ak moom euh, te moom dafa am passion boobu dafa dafa bëgg xale dafa bëgg football. donc euh, yemul ci ñun avant ñun am na ñu mu yoroon yor nañu dem nañ am na yeneen yu mu ñor donc euh, koo xamante ni la dañ koy sant di ko gërëm mënuñu ko fay donc lii rek lañ am à chaque fois di ko nemmeeku di xool ci lu mu nekk su ñu ñëwee su ñu woowee ñu ñëw donc loolu fierté la pour moom donc loolu rek lañ am. merci ok.